yaa fi gën amul ku lay werante te ka ci mustawa tëddal nag nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul xaj bu lay xiirooti lum nan ci mustawa walla yaa reyuk may yaay borom xaas ni mustafa muhammadu abdalaayi ax ni bi mustawa ña daa xiiru ak ñay matu seen géñ ya foq nañ sabawkat yi seen gémmiñ saañ nañ ko Mustafa ña daa jabarak ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa sigil te wey te wammatru yi tuub nañ ci yow bu wér te bul faale ka wuy seeg ka far jekki Mustafa su fekkoon dangay laaj carte say candidat ni wiiw ndayaawat ña daa woote ña daa waati musa ñay woot nee nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoow nga tollu tey ku ñëw rek jekki jooy ndeyaa doon Musa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 te salaaw dootunu delloo wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam si qiya cuuj kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa Cheikh Mustafa may min we waxal wa kallama rabbul arsi Musa bi musawa lu jën jaaga bambaay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag war naa liggéeyal si Mustafa Seex Mustafa ay géeju ngëneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa ma ngay wal fa Mustafa doxom maa ngi war Tuuba batub xaynu rahmatin wa xaynu rida dem leen dëkkee ki Seyxi Mustafa ma nga salaat Tuuba bi tëddiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon Mustafa di sëylo góor ña denculoo góor ña kulluhum di sëylo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum di leen sant di seetal na ngeen sant Moustapha lu waay soxla boo fay dem muy faj loola saaxatan tabe topp yàlla ak moo sax fa Moustapha Cheikh Moustapha yi samsuluda fi zamanihi wala adnal afaaxu min nuuri Moustapha kile am xam-xam te am diine fonk ragal yàlla tey jàmbaar judul daw fa Moustapha kile am médaille fi zahirin bahda batinin hinaayatahoo xablal wilaayati mustawa ki lay waa kokkeek lugaak ndaam di kër ndayam ña doon kaa ngi kànkaak mbaa ko lay raam wasra boo dex gaa ngi fenga te dootu daay sëriñ bey di bahrul juudi nuur leen fa mustawa wala sul baharaani hasbun sarabo wa milhun ujaajum bul qiyaas nit ci ولا يستوي لما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ حمدي مصطفى